أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yu tedd yi góor ak jigéen mag ak ndaw ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp boole seen di leen ziyaara ànd ak di ñaan yàlla mu dolli ñu kàttan ba ñu matal weer wi ak suñu sago te mu nangul ñu ko ak mboole seen jullit ci mbaaxam ak yërmaleem fa tabarakallahu di dellu siwaat di nuyu mboole seen gan yi fi teew jóge ndakaaru cees tëngéej ak li ko wër ñëw tey wéttalante ak waa xadara bi ci bis bi nga xamante ni bokk na ci programme mu centenaire u sëriñ alxaaji Maajoor Sise radiallahu taala anhu ñu ko doon amal tey ca Langue de Barbarie ca ñaareelu bayal ñoo ngi koy ndokkeel mboole seen soppe ak mbokk taalibe yi nga xamante ni ñoo ko organisé woon ca ñaareelu bayal ci ay daayira ak taxawaay bu rafet boobu nga xamante ni am nañ ko ca ñoom ñëpp ñoo ngi leen di gërëm di gërëm mboole seen ñi amoon waxtaan wi dalek ca oustaz alxaaj Babacar Ndiaye fa tabarakallahu alxaaj Babacar Diagne alxaaj Mouhamed Niang tabarakallahu xaaj Abdoulaye Sow ci turu daayira bi macha allahu seen taxawaay rafet na ak ñu doon jàng alquran ak ñu doon tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen koy ndokkeel di ñaan yàlla yal na yàlla gërëm liggéey bi li ci des yal nañ ko mottali ak sunu sago te yal na yàlla sabmat leen ba kenn ku ci nekk delluwaat ci biir këram saanimiina ghanimiina bi xurmati alquraanil karim sunu waxtaan ak yee tey ñu ngi jëm ba tey ci liy sunna ci koor waxoon nañu leen démb ci mbiru xëdd ak dog mu am ci beneen tomb boo xamante ni boroom xam-xam yi dañu ko dugal ci fiq bi tabaarakallahu moo tax ñu seppi ko pour tey ñu indil leen ko ci ay leeral mu ni man shakka fii tuluuci lfajri lahu an yaakula aw yashraba xatta yatayaqana tuluuca alfajri suma yumsiku li qawlihi taala kuluu washrabuu xatta yatayaqana lakum alxaytu alabyad min alxayti alaswadi min alfajri mu ni képp koo xam ni da nga am xel ñaar am sikki sàkk ndax fajar jot na wala jotagul nga xam ndax da nga war a eggale sa xëdd mbaa da nga war jàpp kooku dañu la sant nga lekk nga naan nga nekk sa la nga nekkoon ba mu leer la naññ ni tabaarakallaahu fajar jot na nga soogay jàpp ndax alquran moo wax ni sama borom ne lekk leen naan leen ba mu leer leen naññ ni leeraayu bëccëg feeñ na lëndëmu guddi jeex na tabaarakallaahu ngeen soogay jàpp moom la firee ba nga mën xàmme ràññeele wëñ gu weex ak wëñ gu ñuul xam nga guddi su lëndëmee kiris soo tegee wëñ gu weex ak bu ñuul mënu ko xàmme wante su commencé leer tuuti daa xàmme bii weex na bii ñuul na loolu la junje ci ngeen xàmme leeraayu bëccëg bi tabaarakallaahu ak lëndëmaayu guddi gi am na ku ñëw ci ibnu abbas radiallahu anhuma ni ko inni atasaxar fa ida shakaktu amsaktu fa qaala lahu kul ma shiita xatta la tashukka daf ko laaj ni ko man de sëriñ bi damay woor mais su ma amee sikk sàkk ci xëdd bi rek damay taxaw mu ni ko lekkal naanal nekkal ci la nga nekkoon ba amatoo sikk sàkk xam nga amatoo sikk sàkk mooy wóor na la ni leeraay bi fajar jot na tabaarakallahu boobule wax nag ci masala bi ngir yépp ci lañu bokk manko imaamu malik bun hanbal shafii xanafi ñoom ñëpp ci la ñu ànd tabaarakallahu ni lekk leen naan leen sëy leen ba mu leer leen ni tabaarakallahu leeraayu bëccëg bi feeñ na lundamaayu guddi gi jeex na beneen tomb mu ni isa akala aw shariba aw jaamaa dhannan ghuruba shamsi aw adami tuluci lfajri fa dhahara khilaafu dhalik fa alayhi alqada inda jumhuri alulamaai wa minhum aimatu larbaa yow da nga nekkoon di lekk wala nga di naan wala nga di sëy njorti ni dog nañu ba noppi wala nga njorti ni fajar jotagul njorti nga ni dañu dog ba noppi kon war nga mën a lekk war nga mën naan war nga mën a sëy wala nga njorti ni fajar jotagul nga nekk ca la nga nekkoon ba nga paree ca la nga doon def ndekete yoo dog jotagul ndekete yoo fajar passé na loolu lan mooy atteem borom xam-xam yi nee nañ fa alayhi alqada bés boobu da nga koy fay imaamu malik bun hanbal shafii tabarakallahu ñoom ñëpp loolu la ñu wax da ngay fay bés boobu ah ñeneen ci yeneen ngir yi wax leneen zahaba isxaq wa daawud wa ibnu xazm wa atta wa urwata wa xasan albasri wa mujahid ila anna sawmahu saxiix wala qada alayh ñii ma tudd seen ngir ñoom ñëpp alayhi radiallahu anhum nee nañu kooku ku mu dal saw koor wér na te doo fay dara mu mel naka ixtilaaf taxaw na boroom xam-xam yi seen diggante su amee wuute raxmatun yërmande kott la ñu sukkandiku it ñoom ci alquran ba yàlla di wax ci alquran ni laysa alaykum junaaxun fi maxtatum bihi walakin ma taammadat qulubukum yàlla nee na ci alquran bàkkaar nekkul ci loo xam ni daf la dal ci kaw njumte wante sa xol loolu nekk ci woon du woon sa yéene nga dog yendu wagoon jot lan moo la jaral tabaarakallaahu yendoo xiif yendoo mar ba ngoon jot nga dog ci kaw tayef xanaa ko yaramam neexul nee na kon bàkkaar nekkul ci lu la dal fekk da nga juum mu dal la sa xol loolu du woon yéene bi loolu nag mooy atte bi ci alquran beneen atte bi ibnu maaja moo ko solo jële ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni inna allaha wadaa an ummati alxata wa nisyaana wa mastukrihu alayhi yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam yàlla teggil na xeetam ñetti bàkkaar yii lépp loolu lu la dal ci kaw njubte mbaa ci kaw fàtte mbaa ci kaw dañ la forcé def loolu la ko ne gëmuloo ko jumte day dal nit nit matul fàtte it mën na dal ci biir weeru koor mais contrainte contrainte majeure mooy nga xëy suba woor dugal fii ci koñ bii mbaa ca kër mbaa si béréb booy nekk dajeeg benn yaa dikkoon mu téye jaasi téye butéelu ndox ñu la naan mbaa jaasi nga def lan nga naan ni ko jërëjëf kooku contrainte la ak yeneen yu mel noonu kon yooyu erreur yooyu la fu mu ku mu dal sa koor wér na te dara jototu la yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam man nasiya wa huwa saimun fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa innama at'amahu allahu wa saqaahu nee na képp koo xam ni da nga xëy woor dem liggéey dem entraînement dem ci sa liggéey mu tàng lool nga ñëw sa kër fàtte nga koor gi ndax tàngaay ak coono ubbi sa frigidaire rek jël naana naan naan ba suur ni e laa xawla wala quwata nee na àggaleel sa koor te doo fay dara yàlla moo la doon ndàndal yàlla moo la doon leel ndax yàlla moo la ko fàtteloo am na yërmande sax moo la ko fàtteloo tabaarakallah wante nag fàtte la ñu wax waxuñu fàtte fàttelu waaw kooku nañ ci bàyyi xel fàtte fàttelu leneen la waaw loolu moom fa tabaarakallahu mu ni man aftara fi ramadan naasiyan fala qada alayhi wala kafarat daaru qutniyu moo ko solo yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam képp ku dog sa koor tabaarakallahu ci kaw fàtte doo fay doo kafara yërmëri taxaw na macha allahu taala yire moo du xew-xew tomb yi de dafa bare lu mu xew ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak gannaawam benn saxaaba ñu nettali zeyd ibnu wahab nee na jamono jamono umar ibnu alxataab radiallahu anhu aftara annaas فرأيت عساسا أخرجت من بيت حفصة حفصة فشربوا ثم طلعت الشمس من سحاب فكأن ذلك شق على الناس فقالوا نقضي هذا اليوم فقال عمر لما والله ما تجانفنا لإثم فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم صحابي بن رضي الله عنه جمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه nee na am na bés ñoo ngi dog ba noppi ne mi ngi janoo ñu ngi ne ndab yi ci néegu xafsa radiallahu anha dog nañu ba noppi jant bi feeñaat léeg-léeg mu am jant bi dugg ci niir yi ëmb ko nga dog ba noppi jant bi feeñaat saxaaba yi nekk ci jaxasoo danu koy fay dunu ko fay werante bi umar ibn xatab daal di génn ni leen ban bakkar moo fi am defuñu benn bakkaar bay fay ni leen jamono xiif ak mar médd dagan na suñu demee ba amatuñu lenn lu ñu lekk amatuñu lu ñu lekk ba ñun ñi war lekkante su boobaa lekk médd dagan na kon lii fi xew du dara tabaarakallaahu kenn amul lu muy fay kooku am na jamono umar ibnu xataab buxaari soro na beneen xadis asma bintu sadiq radiallahu anha nee na aftarna yowman من رمضان في غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس سيدة حفصة رضي الله عنها في أسماء أمنا دوغنا جوني صلى الله عليه وسلم دوغنا بنوبي لولو خيو خيوان جنت بي فينيات شيخ ابن تيمية تبارك الله برم خم خم بوب ci walu fiq dal di cey indi ay réponse ulama yépp nag maa ngi ko ci ibnu taymiya wax mu ni ñaari tomb al awal yadullu ala annahu la yustahab maa alghaym altaaxir ila an yatayaqana alghurub fa innahum lam yafcalu dhalika wa lam yaamuruhum annabiy sal allah alih wa sallam nee na loolu ku mu dal fa tegtale ni kenn soppul su asamaan si lëndëmee ngay settantal di xaar heure dog waxtu wa nga dogoon sa démb sa mbaa barki démb dog ca ndax dog duñu bëgg mu gaaw mais soo nekkee di settantal loolu moo la ciy fekk mu ni lii xew nag sallallahu alayhi wa sallam joxewu ci ndigal déggu na fenn fu mu ni fayeen bis boobu de su su ko waxoon dana siiw na dog bu siiwee woon mais waxu ko kon kenn du fay dara wa thani yadullu ala annahu la yajibu alqada ne ñaareelu tegtal bi mooy bis boobu kenn du ko fay loolu ku mu dal jant bi feeñaat booy bu nga xëy eggale sa koor dara waru la insha allahu taala yile mbokk yi dafa di xew-xew yoo xamante ni dafa jage doomu aadama ci fàtte ci njuumte ak jaxase ak jaawale donte mën nga yaakaar ne yow fi nga nekk am nga jàkk ju lay noddal am nga montre boo takk lamp yaa ngi takk mais am na ci bërëb yoo xamante ni ci àdduna jaam dana fa nekk du gis lamp du dégg rajo du dégg noddukat loolu jar na bàyyi xel masala boobu dañu koy tàllal ba ñu nekk ci réew yoo xamante ni les pays scandinaves ku nekk Suède ak réew yu mel noonu jage ko ñooñu le mën nañu toog semaine yàlla ñaari semaine duñu gis jant xamuñ jant buy xëyee buy gont ñoo ngi si guddi ñooñu nan lañu war doge nan lañu war xëdde masala taxaw na ulama yi def ay fatwa ni ñooñu nañu nattable seen heure xëdd ak seen heure ndogu ci réew lislaam yeneen gën a jege tey jant di fa feeñ loolu tabarakallahu dégtu na lii moo doon bind bi yan nañu yàlla may dégg yan nañu yàlla may topp اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين
ñoo ngi leen di yeesalaat julli naafila bi nga xam ni yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam képp koo xam ni guddi laylatul qadri julli na si ñaari raka raka bu ci nekk gannaaw alfaatixa nga jàng qul huwa allahu ahadun juróom-ñaari yoon boo sëlmalee wax astaghfirullah wa atuubu ilayhi juróom-ñaar fukki yoon yàlla maa ngi laa jéggalu maa ngi laa tuubal julli la goo xam ni képp ku ko julli fa nga toog yàlla subhaanahu wa taala dina la jéggal sa bàkkaar jéggal sa ñaari wayjur yebal malaaka sa aljanna mu tabaxal la fa kër bu ràññeeku malaaka di la rooseel garab yi te doo génn àdduna te teguloo sa bët ci boobu lay ngëneel yàlla bu mu ump jullit moo waral saxaaba yu tedd yeeg ulamaa u saalixuuna yi di ko naafila ci guddi weeru koor gi yépp di ci yéene màggal laylatul qadri ñoo ngi leen koy dénkuwaat ànd ak di ñaan yàlla mu dolli ñu kàttan ba ñu matal weer wi ak suñu sago te mu nangul ñu ko ak mboole seen jullit ci mbaaxam ak yërmandeem subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk jullit yi góor ak jigéen mag ak ndaw ñoo ngi leen di nuyu yéen ñépp boole seen di leen ziyaara ànd ak di ñaan yàlla mu dolli ñu kàttan ba ñu matal weer wi ak suñu sago te mu nangul ñu ko ak mboole seen jullit ci mbaaxam ak yërmëreem sunu waxtaan tey jii mi ngi jëm ci makruhaatu saw mi yi nga xam ni dañu ko siib ci koor suñu ne siib mooy loo xam ni xaraamul dogul sa koor yàqul sa koor wante mën na sabab lu dox sa koor yàq sa koor te su boobaa danga mel na ku tey dog sa koor danga war kafaara yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ci xadis boo xam ni buxaari ak muslim rahimahumullah ñoo ko soloo mu ni iyaakum walwisaal iyaakum walwisaal iyaakum walwisaal qaalu fa innaka tuwasilu ya rasul allah قال إنكم لستم في ذلك مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون من صلى الله عليه وسلم ما غيرين دي مويتندي كلو وصال جوك كور أكور وخك نيتيون صحابة ينكو يا رسول الله يو dangay jokk koor ak koor mu ni yéen ak man yemuleen ci mbir mi man damay fanaan yàlla di ma nandal di ma leel kon na ngeen tegoo lu ngeen attan lan moo di jokk koor ak koor bi maanaa nga yendoo woor ba timis waxtu dog fa ñu war a doge yow nga continuer sa koor ba xëdd jot tabaarakallahu nga sumbaat beneen koor te lekkuloo naanuloo loolu mooy jokk koor ak koor moom dafa koy def ñu ni ko yow danga koy def nga ñu koy tere mu ni man ak yéen bokk leen ci mbir mi man damay fanaan yàlla di ma nàndal di ma leel kon tegoo leen lu ngeen attan mbokk yi jokk koor ak koor lu ñu cible ci sharia bi limaamu ahmadu ci ngiram daganal na ko wante ila saxar maa lam takun mashaqa ala saim nee na nit mën na jokk koor ak koor wante ba xëdd maanaam su timis jotee nga eggale dem da nga nekkoon ci ay azkar wala sa jàngum alquran wala sa wiitar sa borom mën nga eggale wante su xëdd jotee na nga xëdd sumba koor moo gën loraange di la ca fekk ngay tooñ sa bopp mu tekk it ci xadis sallallahu alayhi wasallam bi wax ni laa tuwaasilu fa ayukum araada an yuwaasila falyuwaasil xatta saxar moom wax sallallahu alayhi wasallam ni bu leen jokk koor ak koor su amee ci yenn koo xam ne dem na ba bëgg jokk koor ak koor na dem ba xëdd mu yem foofu bu mu ci yokk leneen wa min makruhaati sawmi adduxuulu ala al ahli والنظر إليهن وفضول القول والعمل بوكنا سي نو سيب تي كور دوج سي نيغو سخنا يي نيك سي نيغو جيجين يي نيك سي نيغو جيجين يي ça veut dire ce que ça veut dire mooy laamiso xoolante bëre kaf ree yu neex yi la yëpp yoo xamante ni mën na ñàkk ci ku woor ndax mën na sabab lu jur lu yàq sa koor wa nazaru ilayhinna boyal sa bët tekk ci kaw jigéen di ko xool xool buy jële di ci jële bànneex loolu tamit mën na yëkkati lu yàq sa koor wa fudulul qawli wal amal waxu ngóorint wax yoo xamante ni amul fulla amul faayida du la bijjil tuyaaba daf laa ñàkkal faayida xàqataay tàppante pour yoo xamante ni amul ay futilité la yooyu tamit ci ku woor nga gàttañ lu ci moo gën wa idxaalu kulli ratbin lahu taamun fi lfami dugal sa gémmiñ ñam bu tooy jël orange wala fruit wala tàndarma ju tooy nga jël ko di ko fawee sex yii doo war na naam yàbbiwaat mais guu bi mi ngi sa làmmiñ yaa ngi fooye aussi koor koor dafa nekk lu sérieux waaw du ay fo dañoo jaamu yàlla abstinence al imsaak jàpp ci lépp loo xamante ni mën na jural sa bakkan bànneex jël ñam dugal génne rëccal mën na am bés nga di ko foowe am lu rëcc su boobaa koor gi dog na te da ngaa dugg ci atte koo xam ne moo tey dog kooram bis boobu da nga koy kafaara fay ñaari weer wa iksaaru nawmi nahaaran sib nañu ci ku woor yendoo nelaw fa nga xëdd daal fa ngay tëdd nelaw ba dañu lay yeewaat ni la jógal dog ngir bañ yëg mettitu koor te dafa bokk ci koor nga yëg mettitam yëg xiif gi yëg mar gi ànd ak dem liggéey yi ànd ak nekk si naaj wi loolu lañ ci bëgg wante xëdd tëj sa néeg fay sa lampe wàcce sa rideau taal climatiseur mbaa ventilateur wallahi bañ dog jot na yëguloo mettitu koor kon nag ba noppi nag juliwoo mbooloo juliwoo tisbaar juliwoo tàkkusaan jàngaloo alquran zikiruloo loolu sib nañ ko ci ku woor wa zawqil milxi li taam summa yamujjuhu xaw fa sabti soxna yi ci waañ wi mos xorom mos xorom ci kaw dir bi mos supp bi wala li ngay togg ba xool ndax xaram bi baax na wala baaxul nga yàbbiwaat bala muy rëcc loolu tamit gënul ndax lu rëcc dafa gaaw tabaarakallahu soo amee ku la mosle na la mosle loolu ci ndaw yi ci biir kër gi tabaarakallahu mbaa soo dogee nga soogay sàppali li nga xamante ni moom nga bëgg mu saf ko wa zawqul asri wal xalli ni ki noonu siib nañu mos lem lem bi nga di seet ban xeetu lem la ndax bu original bi la wala bu ñu rax bi la yooyu yëpp lu mënta daal lem bi dana dugg sa gémmiñ daa sàppali sa làmmiñ te soometu it mën na am lu egg ci suuf wal xalli ak mos bineegar bineegar it mooy xorom si rek pour seen ndax war nga yokk wala war nga wàññi loolu yëpp daal jéemal ci gàttañ lu wa madru taami li sabiyi soo amee xale bu ndaw perantal di ko defaral yenn ci ñam yi yàpp nga yëy ba noppi pour jox ko mu gën a nooy si làmmiñam tabaarakallahu loolu tamit gënul ndax yàpp woowule mbaa soos boobule soo dugalee teg sa làmmiñ dana am lu caf ko boo xamante ni dana des ci kaw làmmiñ bi niki noonu it wa madaxul lu baan shingom shingom du yàpp du jën wante saf na suukar te yi neex na ca ga koy def kon shingom it lu ñu cible ci ku woor wa mudaawaati maradin bil asnaani nahaaran illa ida kaana fi sabrihi ila leyli dararan faj bëñ faj bëñ buy metti bëccëgu weeru koor tabaarakallaahu lu dul fekkente ni mën nga ko muñ ba guddi fa illaahi alhamdu soo ko mënulee muñ nag ndax mettit su boobaa mën nga dugg ci attewu koo xamante ni dafa feebar nga dem faju ji nga dog bés boobule jël say garab su koor gi paasee nga fay sa bés boobu nga tabaarakallaahu mu ni fa idan فلا باس به نهارا ثم لا شيء عليه وإن ابتلع الدواء غلبة قضى وفي العمد الكفارة su fekkente ni bëñ bi mën na muñ muñ bëccëg bi fay laa alhamdu su ma nee muñ nag nga dem faj sa bëñ bëccëg wante garab bañ lay defar ci gémmiñ si bëñ bi seen liquide yooyu le su rëccee ba egg ci put gi sa koor dafa dog da ngay fay bés boobu wante aussi soo teyee yow rëcc rëcc ruuga naan ko garab yi doonte garab bi neexul ndax garab musul neex mais soo ko teyee ba mu dugg sa put ci kaw teyeef daa tey dog sa koor da ngay kafara bés boobu kon loolu lu sensible la ñi nga xam ni dañu am métitu bëñ bëccëgu weeru koor su la wóoree ni soo demee faju ji dañoo def ñi def ñi rek te dara du yàqu fii lay alhamdu soo ko mënulee nga muñ ba guddi ñee faj bëñ tamit jàpp naa ni weeru koor seen liggéey guddi la waroon doon fa ñu dogee jëm guddi macha allahu taala mën nañu ubbi seen ay cabinet ubbi seen ay bureau ñooñu ñëpp ñëw ak xel mu dal faju moo ëpp yërmane moo ëpp jàmm ci ku woor sib nañ ci ku woor it alxajaama wal fisaada fi xaqi saaimin marid maxaafata taxrir fa yuaddi zalika ila fitrihi ventouse teg ventouse gàjju may deret yi la yépp ci ku woor mën na jur fa nga doon mayee deret wala nga teg ventouse wala ngay gàjju mën na jur xëm te su xëm ñëwee sa koor dafay dog foofu nag am na ñetti hypothèse mu ni hada ida shakka fi salami salaamati na al ixmaayi wa adamiha su fekkee nit ki dafa am xel ñaar xam na organisme am ñu su demee maye ji deret mbaa mu gàjju mbaa mu teg ventouse yooyu le am na xel ñaar que ni mën a si jële xëm xëy na mës na ko def benn yoon mais xelam daa dalu ci su boobaa day nekk lu ñu la tere ci fàqam bu ko def si sàkke bi su amee daal jëlal tendance bi nga xamante ni mooy bu ko def wa in alima salaamata jaazat su xamee organisme am yàgg na ko def xëy na weeru koor nga xam ni soo mayee deret wala nga gàjju tabaarakallaahu dara du la si fekk mën a dagal sa wàll wa in alima alfitre xarumat wa yakunu alayhi alqada duna alkafara soo xamee bu mu weer leer laññ nag ni soo demee mayee ji deret weeru koor ala kulli xaal ci nga dox sa koor ndax di nga miir te daa soxla naan ndox lekk ñam pour am ama doole soo xamee loolu nag dem maye ji deret def nga lu xaraam su sa koor dogee bis boobu le tabaarakallaahu da nga koy fay wante nag doo ko kafara loolu tamit ñu bàyyi si xel lu ñu siib la min makruhaati sawmi aydan li shabi wa li sheykhi rajulun aw imraa an yuqabbila zawjatahu aw amatahu wa huwa saa'imun aw yubaashira أو يلاعب أو ينظر أو يفكر على المشهور sib nañu ci ku woor na nekk góor mbaa mu nekk jigéen na nekk mag baa mu nekk ndaw ak waxambaande bëccëgu weeru koor nga di fóon ak sa soxna réesoo yooyu dañu ko siit ndax mën na sabab la nga xamante ni du gën ca yow ci ku woor nekk si biir néeg bi di tingoomante di sooti mbaraayoo di dàqe yooyu yëpp tabaarakallahu dafay jur lu mën yàq sa koor baa nga jël sa bët rek boyal ka ci sa soxna si fa mu nekk fa muy soloo fa muy simeekoo nga ni ko jàkk ay bët sa xel di dem ci moom dañu ko siib ci ku woor wante foofu yi den am na hypothèse wa ida alima min nafsihi assalaama min madyin wa maniyin wa inaadin su dee wóor na nit ki ni xoole boobu muy xool soxnaam mbaa bëri bi ñuy bëri mbaa laamisoo bi ñoo laamisoo mbaa riso bi ñoo riso du yëkkati ci moom mës yu wala mëni yu wala kanamam taxaw su ko wóoree ne dara du ko si fekk fallaahi alhamdu dara ayu ci wante nit organisme nit organisme yaramu góor ak yaramu jigéen dafa am ñaari onde yoo xam ne suñu dajee rek loolu foog mu déclenché wu mëni yu mën na génn mbaa mës yu wala kanam bu taxaw wa amma in alima aw shakka adama salaamati min zalika xarumat muqaddimatul jimaa mais nit ki su xamee boppam xam faiblesse am ci digganteem ak soxna si wala yow soxla si xam nga faiblesse am sa faiblesse sa diggante ak sa borom kër ne su boobaa nga xam loolu xam ni lu ñëw seen diggante ci wàllu laamisoo wàllu bëre wàllu xoolante mën na am lu déclenché su boobaa muqaddimatu jimaa dafay nekk lu xaraam mbir yooyu dafay nekk lu xaraam ci yow soo ko defee lu la ca fekk yaa tey dog sa koor bis boobu da nga koy kafaara wa minha at tatayub at tatayub mooy parfum parfum yi lat koloñ yi miski yi cuuraay yi yi la yëpp ci ku woor dañu ko sib xaraamul dañu ko sib mën nga sangu soo sangoo ca fajar sa waxtu xëdd boobule nga def sa parfum def sa déodorant mën na la topp bëccëg bi wante bëccëgu weeru koor nga ñëw ba 10 heures 11 heures nga yeewu sangu tuuroo parfum kooroo mu jox ko ko loolu tabaarakallaahu it dañu ko siib dafa bokk ci bànneexu bakkan wa minha sawmu sitta ayaam min shawal muttasilatin bi yowmi iid mudhiratan muctaqidan sunniyatan wasliha wa illa fa illa fala karaha dafa wax moom sallallahu alayhi wa sallam ni man saama ramadan ku woor weeru koor ba mu jeex wa atbaahu bi sittin min shawal fa ka annama saama dëhra kullu suñu wooree ba noppi ba korite ëllëg sa shawal nga teg si juróom benn fan di ko woor yu teg toftaloo ne mel na nga ku woor at mi yépp dégg-dégg dafa am fa solo foofu ku woor at mi yépp mooy lan ni wal xasanaatu bi ashri amsaaliha benn bés bu nekk ñu compter la ko muy fukki bés kon weeru koor gi 30 jours la ba 29 jours 30 jours su dee bés bu nekk di fukki fan weeru koor gi day nekk fukki weer bés bu nekk di fukki fan compter juróom benn fanu shawaal yi su dee benn fan bu nekk di fukki fan juróom benn fan day nekk ñaari weer kon fukki weeru koor gi ak ñaari weeru tabaarkalla shawaal yi nekk fukki weer ak ñaar mooy at mi yëpp xadis bi taxaw na mu ni nag woor juróom benn fanu shawaal yi képp ku xëy suba ëllëgu korite nga xëy di ko woor jàpp ne yaa ngi dundal sunna ne loolu dañ ko siib at mi yëpp la foo ko si wooree baax na boroom xam-xam yi ni la ca gën neex mooy na mu gënee sore koor gi tuyaaba ji di gën a màgg moo tax fukki fan juróom benn fan yooyu dañu koy tànn di ko yóbbu ca fanu tabaski ya fukki fan yooyu soo ko ca defee sore na koor gi tabaarakallaahu te fan yooyu fan yu tedd la yuy jar a woor wante koo xam ni da nga baaxoo woon suñu wooree rek nga xëy woor kooku bul soppi sa bul soppi sa yëf li bon mooy nga di ko def jàpp ni sunna ngay duddal foofu lañ ni siib nañ ko fa tabaarakallaahu loolu tey moo doon buntu bi ñu di ñaan yàlla may ñu dégg e may ñu topp ak jëfe bu rafet te mu nangul ñu ko allahuma jacal jamcana hada jamcan marxuman wa tafarruqana min bacdihi tafarruqan macsuuman wala tajcal fiina wala macana shaqiyan wala matrudan wala maxruman biraxmatika ya arxama arraximin
ñoo ngi leen di yeesalaat julli naafile bi nga xam ni yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam képp koo xam ni guddi laylatul qadri julli na si ñaari raka raka bu ci nekk gannaaw alfaatixa nga jàng qul huwa allahu ahadun juróom ñaari yoon boo sëlmalee wax astaghfirullah wa atuubu ilayhi juróom ñaar fukki yoon yàlla maa ngi laa jéggalu maa ngi laa tuubal julli la goo xam ni képp ku ko julli fa nga toog yàlla subhaanahu wa taala dina la jéggal sa bàkkaar jéggal sa ñaari wayjur yebal malaaka sa aljanna mu tabaxal la fa kër bu ràññeeku malaaka di la rooseel garab yi te doo génn àdduna te teguloo sa bët ci boobu lay ngëneel yàlla bu mu ump jullit moo waral saxaaba yu tedd yeeg ulamaa saalixuuna yi di ko naafila ci guddi weeru koor gi yépp di ci yéene màggal laylatul qadri ñoo ngi leen koy dénkuwaat ànd ak di ñaan yàlla mu dolli ñu kàttan ba ñu matal weer wi ak suñu sago te mu nangul ñu ko ak mboole seen jullit ci mbaaxam ak yërmandeem subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu